assalamualaikum warahmatullahi jiin dakar ak ti ak suñu ay téléspectateur maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziaré di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yeen mu melni ki nak comme ni ngeen ko xamé rek lamb lañ leen di topal sa su nek rek ci jamm bu mu ko laaje ak champion bañuy topi tay nak ki ñu top ci mën nañ ko tuddu le futur champion parce que li tax mooy Sénégal sénégalais yu bare bari ñu ngi koy wax te itam nag am na lu mu ci wan sénégalais yi ba tax ñu jàpp ne futur champion la muy Serigne Ndiaye numéro de Coriace yaakaar naa kenn du ko présenté ci wàllum làmbi Sénégal gal fi mu Sénégal fi mu nekk nii ci ku koy suivre moo xam ci mbappat mi la. ak ci domaine bu mu jamono doon moo xam ci li nga xam ne nii tamit moom mooy lit avec frappe bi la bërki démb la bëri ak bébé Saloum daan ko fa nga xam ne nii moo doon ca arène nationale mel ni ki nag tey moom la ñu seet si ah, saa yoo ñëwee rek Cheikh Omar fi nga koy fekk daal mooy benn logement bi quoi waaw xam naa fii mooy logement mooy mooy mooy hôtel cinq étoiles am ci loo ne. baaxee maa ngi baax. nga jàmm. maa ngi sant macha allah am lay. ma bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan ak sa soppe yi. waaw ñu sant yàlla bu baax julli si bi xam nga sant suñu ñaari waajur xam nga gërëm suma papa bu baax suma yaay bu baax a baax. Mm-hmm. nuyu waa Medina bu baax. ki ñu juddoo Yorof fa nuyu waa Njaafar Séeréer suma village. Mm-hmm. Ndafa Escale Ndafa Sër ak cent quinze villages yëpp. Mm-hmm. di nuyu sama maire maintenant mu lebel ba mu faal. Mm-hmm. di ko remercier bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di nuyu waa Kër yëpp. xam nga suma entraîneur Père Amath Diop suma papa Tafa Gueye. Père Abbas Ndoye l'infatigable. di nuyu sama parrain xam nga Père Youssou Lakom. baax a baax a baax di nga ñaanal jàmm ak salaam. di nuyu l'infatigable Kanté Badian. di ko remercier bu baax daal vraiment. di nuyu képp muy bëggee Serigne Ndiaye numéro 2 rek. maa ngi baax di bëggee di nuyu waa Gambie yi. suñu baba yaay Aziz xam bu baax ak sama coach bi nekk Ibrahima ak vraiment di nuyu grand Aliou vraiment di nuyu waa maintenant encore une fois mille pour cent maintenant bi son président Fass Cap Tamporo ak nga Ousseynou a di ko siyaar euh, bu baax a baax daal

da a déwar quoi vraiment di ko mosoo tamit baax mu amoon fayam wallahi lazim amoon fayam mëntu moo ko sant dama ñaan yàlla ba sa instant dafal li jaara fi jaara fii ko amoon fayam sa mëntu yo xel dafal jàmm ak waa këram yëpp ak sama copain Bamba quoi di ko ziar bu baax am na solo mais Serigne Ndiaye yaakaar naa da nga jóge ci komba Eumeu sen senior nga bëreel daan ko ñu joxat la ki nga xam salom Bébé salum barki demb Baba jaw cham production tëggoon ko ñu koy nuyu di ko euh nga yalla dogal nga dan ki nga xam ne salom. moy Bébé salum suma dikaté ci si combat bi combat bi noko préparer parce que suma jumulé ci bir préparation bi def nga fi ay wèr gambi Sénégal continue bi ngay dem gambi, ndax dañ la fa yebalon say kilifa la fa yebalon nga dem fa wala yow ya jekkon nga yaakar ne fofu man nga fa dem pour liggéey quoi et puis combat bi noko préparer wa xam man dogal say bu si yóbbu rek su ma noppali ko benn deux semaines rek damay ànd sama coach Kanté xam nga dem Gambie dafa benn un mois wala deux mois hivernal préparation bi te ren dafa tombé loolu tamit semaine bu ma demoon Gambie pour hivernal yàlla dogal taxaw moo tax dinañu Kanté bu baax a baax a baax vraiment ak bu ma nekkoon mooy hôtel Kër Tooro Aliou di ko ziar bu baax a baax a baax sama loolu kese la woon yàlla dogal ba bu jaar yoon def Gambie deux mois après ñëw bi parce que waru moo ñëw sax mai Euh, combat Ama Baldé euh, Modou Lo bi comme su mbaxtu faagee li nga tuddee woon c'était obligatoire mu ñëw loolu moo tax ma ñëw mais si yoon waru moo ñëw xam nga moo tax ma ñëwoon assister combat bi mu jàll ma toog ko sama programme dinu tamit euh, ku a baax baax parce que Ama maanaam Gambie dafa dem préparation bu jaar yoon maanaam Gambie nekk ak Kanté l'infatigable liggéey ñëwaat daal léegi nga dem liggéey ñëwaat adversaire moo tolloon noonu ba tax nga def def déplacement bu toll noonu wala lan la non non pas adversaire man li ma su nekk rek man tey amaguma adversaire bu ma jaral yooyu yëpp tey moom dama nekk athlète di liggéey donc su fekkoon ne dama koy def wax sama performance rek dama koy def komba ou sans combat noonu dundee tey bu suñu moto yoon tey tey tey tey encore sama regroupement am sama coach ànd ak ñu ma àndal dem liggéey yokk sama xam-xam yokk sama doole. buñ dikkee si combat bi adversaire bi ñu ko jëlee ñu bëri am na ñu doon wax ne Serigne Ndiaye dafa bëgg lu yomb wala bii combat du combat am na ñu bari ñu ko doon wax moom li yow dégg nga ko te itam am na ñu bari ñu jàppe woon adversaire bi nga amoon est-ce que yow gëmoon nga ne lu yomb la wala comme ni ko nit ñi loolu ne Bébé Saloum mbër mu yomb la. waaw man comme d'habitude ah man saa ma jëlee combat gars yi daal yomb na yomb mais li ma gëm man ak li may liggéey mooy man amul ku may mën téye même du moom. Hmm. waaw parce que allah damay liggéey te euh, am na ay coach hmm. li may wax comme j'ai tout ce qu'il faut pour être un champion. Mhm. donc li moi mooy ci bopp la ci mental la. Mhm. te loolu maa ngi koy entraîné ba taxaw képp taxaw si kanam yaa ko mën. Mhm. moom laay dund daal vraiment. combat bi tey su ma la ko laajoon ne la ndax mën nga ma koo décortiquer ni ngeen bëri ba ni nga ko daan mën nga ko décortiquer. waaw da nga ko décortiquer lenn kese la abi sif na. ma dox si kawam ma rey deux pas. moom mu njëkk a dugal gauche automatiquement ma remise ko. wàcc mépp. ma du ma dugal droite droite boo xam ne tegu ma ko fenn ci yoon. waaw mu dugal droite mu fay mu sàcc ma ko. mu rëpp mu jàpp ngemb li mais mu changé tamit encore une fois ngemb mbëri même bu jëlee ñu koy testé balaa ñuy bëri sax ñu ko testé. waaw aussi parce que des fois gars yi duñ takk seen ngemb yi. te loolu tricherie la. daa wala. takkul ngemb li yàlla dogal ma jargandu moom. mu taxaw sama force ko plaqué. xam naa ne day mboot mboot ma yokk ko dënn beeg biir bi laa suuf. am na ñu ne yaa daan yaa daan effectivement ñu félicité la mais am na ñu bëri ñu jàpp ne keroog def nga erreur bu rëy ci combat bi. waaw non si des fois bëy def erreur ba xam naa def naa erreur te dama xëy nangu. Mhm. Mhm. parce que waruma yëg waruma yëg moom foofu. Mhm. parce que combat la boo xam ne nag vaar la mujjee parce que bi action bi amee arbitre yi am nañ problème mu xam exactement ne am na même bu ko arbitre central bi jàppee xëy na arbitre tuuti moom jàppuñu ko dut boobu. foofu vaar am parce que tey su ma su ma jugoon tag suuf. man je l'ai fait espérer ma dëbb ko plaque xam naa ne day mboot fo mu def leen loolu mboot. mboot lan la mën a def. bu kese bu mbootee damay jàll si ginnaaw war ko nomb. Uh-huh. te foofu li nga xam na fa xew. Uh-huh. yow xaaroon nga bébé Saloum bëri ak yow bëri boobu. non moom bëriwul deful dara maa bëri maa def lépp ah rek la. dam yi rek moom mën naa jox il nga yaakaar il la ndeke ki cinq la soxla je l'ai fait exprès moom fekkoon taaram dëgg li ma def mooy ràcc rasu jàkkaarloog man doomam bot mo fa la mu yóbbu ci mboot ponk mu toll li man xale bu doomam doole nga nag mooy mboot foo jëm mais dama ko def exprès plaqué ko mo muy bot force mo bot mo mboot jàll si gi mais pourtant day réclamer réclamer la daan di ya moom man il m'a déçu quoi waaw dama bet trop lu mu bett la non na parce que nit concevoir ngay bëri xale bo jox cër ben xale bu lëpp doole ñaar yoon mm-hmm. hmm lamb gën ko yaakaar nga bëri mom mu dal la jëli bu reuy ba léegi manqué wala respect mm-hmm. après nga tok di wax di n'importe quoi après nga taxaw léegi diko diko diko wax ne mm-hmm. amu sens quoi pour man lépp sa yow Franc daan na ko fi mu génn certaine victoire Franc mm. mu aawee si dañ ko xex du gauche à droite Ama Baldé mii daan na ko fi. mu yàq deram Reug Reug waxi noppi toog bu ñëwee si man damay jàpp ne moom xelam fa la toll. àdduna ni da ngay sportif nangu lu yàlla dogal. nangu yàlla dogal mooy suñu borom mooy dogal ay ay ay ay dina boo xam ne du di saw ngeen baam ci kàddu gi. fii nag Dakar dafa xat xamante ne loo wax si nit lu ñaaw rek di mën a sew duubal lu ko ñaaw non ma yarewuñu ma noonu amul sens. na rafet sport lañu sekkoon jeex na yàlla mën na daw si kawam ñu jàll ci leen moo gën. Mhm. li muy génn am benn sens. te moom xam ak ay mbokam barki alxuraanu karim ak baam ci waat bi dix combat ma xamone fouf wallahi la jim dix combat la wax do bokkuñ ci comme yalla yani mais est ce que euh, tamit waxe respect ñang manque de respect mo mo moo moo tax di wax wala fi ngeen yegg ci beure ak mom niñ ko manam combat bi bi taxawé niñ ne mon mom du favori day dem daanu ji ngeen beure nonu est ce que du loolu ko tax di wax mi beure une 2 minutes waaw beure bi ka yagul dama ko japp mu jeex sama lolo wax suma ko japp mu jeex dama ko jàpp mu jeex moom fa la nekkoon nekkee jàmbaar mooy mu taxaw ne damay jixaat seen Ndiaye tey yow dóor nga benn góos ma remise naa la góos bu dal rek papa li ma jaaxal mooy moom ban télé la seetaane làmb ji ma loolu sama problème ban télé la seetaane làmb ji ma loolu sama problème saa yi da am looy jomm xam ne sa ginnaaw ay kilifa fa nekk di la jàppale am dina xam ne jaru ko wax jarul wax ci làmb di yàq di góos à droite jaru ko so yi man kilifa bu topp suma ginnaaw rek ñàkk ko muy Tafa Gueye muy Abbas muy keneen moom ko topp ñàkkuñu fay de. mais it ñàkkul. noonu la liggéey ay ndaw la mu defaarandoo. xam si moom mbër waada la. waaw xam non mbër waada la mais a bëri la a bëri. mën a bëri ko ko manqué muy liggéey dañu mënta dëgg. man tax kilifa yi topp sama ginnaaw mooy damay entraîné man dama juddoo Medina yoroo Medina màggee Medina mu nekk comme mi Medina ñuy def nekk ci lu ma saf mais dama jël lépp dëxañu entraîné lekk tëdd nelaw parce que jomb naa su may kilifa di ma dégg ci yenn yi wala ñu ma gis yenn yi dégg nga ma Dakar dafa xat nga ñu xamante ne suñu biir da ngay liggéey nga bàyyi ci nga jéem a dabe seen borom moom solo. léegi daan nga ko ñu félicité la encouragé ko. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sëtub maram jiin bàyyi maam